jotara noo def. maa ngi fi. namm naa la maa la raw. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi si jotara. mi ngi fi mi ngi bu baax kay eh, alhamdulilah naka korite gi. ay waay déwén yi eh, fekkee déwén. baal ma àq baal naa la baal naa la. naka xale yi ñu ngi ci jàmm. fan nga jullee Thiès. ah alhamdulilah. Mhm. Euh, fii ci Dakar. Mhm. moo ñëw woon nag dinaa ñëw pour ñu waxtaan. mbaa jàmm la sant rek

bul fàtte ni dalon na ma ci Omar gey Omar gey deug na ta fi ma jaar ak mom hmm. gis nga mujju ki na mu doxale ay warkat lañ lank ne du genn ah. ma jaar Diouf na mu doxale hmm. lank ne du genn hmm. motax ma ni suma genné yawit da ngay lank ne du parce que poste bi nga nekkoon am na solo neex na trop ministre des sports ya mu gënal waaye wane nga ni sa wëy jur laa wane nga ni fonk nga ma lii daal lu am solo la sant naa yàlla kontaan ci lii alhamdulilah natt bi nag fu tollu moom ça va mi ngi avancé bu baax bu baax macha allah mi ngi avancé de mi ngi avancé bu baax sax ñu ngi avancé xam nga rek xam nga ñun ñun nag ñun femme brave yi. Mhm. ñu ngi nekk ci li nga xam ni rek mooy ci liggéeyukaay bi. macha allah te xam nga ñun rek mooy loolu. Mhm. kenn kenn dañuy voyage fu nañu di dem. Mhm. te natt bi moo ñu ci jàppale. mooy loolu macha allah. mais yaa ngi am jàmm. maa ngi si jàmm maa bu baax. nag. natt bi natt ba bi ñu bokk nii. ah mais fii xam nga yow nag da am jom.

xam nga rek loolu. natt baa ngi muy kat muy cent quatre yoo xam ne yow yaa ko moom. ana soxna si. Ah, nag dafa jëli benn natt. ah mooy natt ministère yi. ah natt jabaru ministère yi macha allah macha allah loolu am na solo. Ah, am na solo ndax fi mu toll nii. Hmm. bu jëlee lam ca am. Hmm. di nga ci mën weer yi bareetu hmm. li ci des ngir ñu yegg ca donkaasi gi. lu tuuti la. Mm. président moo fi ne ak man ak Sonko mi wëndeelu. Ah, waaw te wëndeeloom gi. Mm. jafe-jafe du ci am. jafe-jafe ndaxte président dana fexe ba ne ko nuus. Mm. bu ko defee moom du dem président du dem ma ne fi. di lëmbe. Ah, ah. poste bii tey ñu jël amadu Ba jox ko lii ñu ko jox. boo yeboo xam ni bu ma faloo moom. yaay buur di bum bi. Ah, alhamdulilah alhamdulilah loolu day wax dëgg yàlla rafet na. boo gisee tey sama teewaay fii. ma sama jëkkër Yankoba dañ ko tuddee woon làmb. diggante Alaaji Mbay ak euh, Tafatine. ñu war koo tëgg. looloo gënoon yokk tax tey tax ma ñëw. diggante Tafatine ak Alaaji Mbay tey xam nga ni ku ñu tuddee làmb ku nekk nag moom. Ah, da war a def lu rëy. surtout diggante boobu muy euh, Lathia Mbaye ak euh, Tapha Tine. nit ñaa ngi koy xaar. Mm-hmm. wax dëgg yàlla muy diggante bu neex waaye nag euh, madame Diatara c'est dommage. Mm-hmm. Hmm? xam nga wax dëgg yàlla remaniement bi sax man yëguma ko woon mais démb ñu ngi may woo di ma wax ni ko Diatara dafa dañ ko génn ci gouvernement bi te xam nga ne wax dëgg yàlla natt bi dafa am ay charte koo xas ba dugg dootoo génnati xanaa waxtaanoo monsieur Diatara. ok si lañ dëkk sax de si lañ dëkk waaye xam nga rek comme parfois yenn mbir su ñëwee su taxawee rek. si natt yi moo la si mën a génne. Mm-hmm. moo tax ma soo samay daal daal sama oto ñëw ba fii pour seet la. Mm-hmm. pour rek soo ma mënee jox ma dem lijjanti daal. ay eh, madame Diatara loolu mënul na yow tamit nag xam nga ne loolu mënul ne waxoon nañ ko fii. ndax képp ku dugg ci gouvernement bi boo duggee ci gouvernement bi ba nekk soxna ministre rek. boo xasee ba dugg rek dootoo génnati. ak yow li nga wax fii yëpp ne nga man ku jub laa sama natt musta manqué. wax dëgg yàlla dëgg la nag. ngay dimbali rek te yàlla tax yow itam. wax dëgg yàlla mënoon na. ndax lii natt soxna ministre rek la loolu wax dëgg yàlla am naa ci yow loolu yërmande. ndax xam naa ni nit koo xam ne la ko dëgg woon ci natt bi la te natt bi mu musaana jot yow yaay njëkk a joxe mais mënul ne. wax dëgg yàlla je suis vraiment désolée. Hmm. madame Diatara ñaata laa fi am nga ni. 190 euh, euh, euh, jabaru ministre laa woon nga ni. Mm-hmm. bi ma lay jox xaalis bi. Mm-hmm. n'est-ce pas jabaru ministre yi laa bokkoon. Mm-hmm. soo taxawee tey ne ma ex ministre laa kay raison de plus nga war maa jox li ma fi jot a am. nag yow itam. madame Diatara loolu mënul ne. ah lu tax loolu. dafa mënta ne rek. ndax lan dafa mënta ne mënta ne. ah déet da may ñun duñu bokk ñun ku bokk ci ñun dangaa dugg ci gouvernement bi mais boo xasee ba génn kay sa xaalis bi ngi ci ñun. léegi loolu foo ko teg. Euh, xam dugal ko ci fondation. kon léegi sama xaalis bi ma fi jot a dajale yëpp jox la ko. nga ne da nga koy dem 190 millions ci fondation yi la jëm. dañ koy dimbali nit ñi du bàyyi ngeen. te waxtaanoo ak sa jëkkër sa jëkkër xam xam na fi dëkk bi toll nii ñu nekk ci biir gouvernement bi di liggéey yow ngi ñu ñu jël ko ñu ko arrêté ngay moom mu arrêté dëgg yàlla nag madame Diatara vraiment je suis vraiment désolé wax dëgg yàlla cent quatre-vingt-dix millions yi moom wax dëgg yàlla du da nga koy gis nii rek waaye wax dëgg yàlla bu déedéet nag du déet déet déet déet déet man kat déet ma ah yow ki ak may dajal di yow sant nañ ci bu baax tay ndax poste ministre bi ma amé mm. yow ya tax ndax bu la neexon tan keneen mm-hmm. mais nak ngor googu nga ma ji mm-hmm. man dama la koy delo ba mu man sama papa nga sama wajur nga luma mel ak yow ya tax nit ñi bëgg ma ya tax nit ñi fo top ma kon nak duma la war man ak yow ba ci premier ministre inshallah allah xam naa nag du yomb sax waye yombul waaw ah, du yomb ngor gor yombatu mm-hmm, wane nga ni gor nga waaw gisoo ci faal war na la ah ñoom ñëpp war nañ la tudd seeni tur sax laay bañ hmm. wallahi yombatu ñëpp war nañ la mais duñ ci am ndam masha allah ah, yomb mais yaa ngi am yaakaar ci réew mi waaw alhamdulilah hmm. asalaamaaleykum wa maaleykum salaam waaw ah, président ah, waaw waaw na ngeen def waaw ça va ah na ngeen def ñi ñoom ñaay ñi ki jamono kee la ab promoteur la ah promoteur ah jamono kee promoteur la ki wala la na ngeen def indala waaw ñu ngi sant yàlla rek sant borom bi. waaw waaw dëgg dëgg ñi de président. waaw ñu baax lañ. Mm-hmm. jàmm mi day sunu wëllëre. waaw mu ni ma woon day tudde parti bi. Mm-hmm. làmbu parti bi bi réew mi. ndax gis na ni parti bi daal fi mu nii. Mm-hmm. Euh, taxawaay bi nga xamante ni amee nañ ko ci réew mi ndax dañoo génneeg def buum biñ ma ko waxee nag man leen ah waa baax na indiloon nañ ma leetar bi sax keroog. mais dama la ko fàtte woon a jox. waaw waaw parti bi daal lañ tuddee làmb muy euh, Alaaji Mbay ak Tafatine. Alaaji Mbay ak tafaatin moom lañ tuddee parti bu réew mi mën leen président sax mi ngi fi. far yàlla dogal ñu fekk la fi lii moom wax dëgg yàlla woote bi yàlla gën bu nit. Mm-hmm. Uh-huh. président yi nii. waaw uh-huh. yéen du doonoon seen yitte nii. waaw yow lañ tuddee drapeau hmm? seet si woon yow lañ tuddee drapeau bi. mooy drapeau parti réew. waaw drapeau soutien bi la joxoon daal moom la doon jël si waat. Tafatine ak. waaw Mbay. Alaaji Mbay amoon na soutien bu ñu la joxoon moo ñu tax a jóg quoi. soutien bi daal lañ ko hmm? Hmm? bëgg sport la ko bëgg réew mi. waaw. maanaam ñii. ma koy tuddee. maa ngi woon si sport ah, bi. waaw waaw si sport bi xam nga nag booba génn goo. Hmm. génn gu woon. léegi nag gëm ko yàlla dogal na sport bee taxoon ñu tuddee ma ko te sportuma waaw te yow sportu te yaa taxoon may sport mm-hmm. moo tax ma ne ko léegi dañ ko def parti réew mi rek sàkk la sàkk la léegi yéen kon léegi waxtaan ne kilifa gi ah, bu ko defee da ngeen ah? yegga yeggalee leen rek parce que comme que yow xam nga am na loo xam ni teraanga la mm-hmm. bu dee da ngeen ko xool moom. nee naa la nee naa lu ma am man la yow yaay teraanga ji. yow kay lépp delloo naa la. na ma la delloo waaye lii. noonu laa la delloo. waaw lii moom wax dëgg fa yàlla. Alaaji Mbay Tafatin la. Alaaji Mbay Tafatin. waaw xam nga comme que yàlla dogal na. Mm-hmm. xam nga booy tuddee nit sentir nga yankoo la. Mm-hmm, mm-hmm, la jabaram bokk na natt natt bu ñaari lox hmm? ni mu wax sànq. donc bu fekkente ni. ci natt boobu yankoo ba. da ngay fexe rek comme que ab sac la te ministère bee tax ñu tuddee la ko. doonatuma ministre. waaw waaye continuité ci lépp après bu ñu gañee rek. ci kii bi boo nekkee premier ministre. loolu mais ministre bi delloowaatu guñ ko de ñu ngi ko jox premier ministre bi joxaguñ ko kenn de. waaw waaw kon. après soutien yi waxal ak ñoom comme ñoom macha allah kon xam naa ñun ñi ngi maa ngay kii waaw maanaam ñii dañ koo jël si ndax war nañoo dem si télé yi waaw jox mbër yi avance waaw waaw yooyu yëpp te lii lañ yaakaar waaw te man mi ginnaaw yàlla li ma la waxoon léegi yow laa yaakaar waaw opposition la ñu ne xam nga fi mu toll nii conseiller bi tax nag niñ ko defee jotu te kontaan nañ ci yow mooy loolu wallaay ndeysaan kon ma ngi len di bàyyi rek le leen insha allah jërëjëf jatara iya, iya. ku gore nga ku gore laa ya, waaye ku gore li nga waaw waaw eh, xam naa kon yéen dama leen di yeewi xam naa insha bu soxna si ñëwee hmm. insha allah dinaa leen woo lu soxna si jëli Ah. waaw am na lu mu jëli bu ma ñëwee dinaa leen woo. boo ma jotul waaw incha bu soobee si ñëwee rek dinaa woo am na lu mu jëli. waaw da ngeen toog ba si garab waaw wala ñu nekk nii xaaral ba añ toog toog leen ba añ ba noppi. non toog toog leen ba añ. wuy ma wuy toog leen ba añ. baax na ngeen ah. de ñëw nañ ñi ma tuddee drapeau bi kii mooy jamaïcain. jamaïcain ah, promoteur bi kii wër na ñoom ñoo tuddee daal. jamaïcain Alaaji Mbay mm. fii nga toog nag fi la président toogoon. Mm. ñii nag bi ñu ma koy tuddee maa doonoon ministre du sport doonatuma ko. moo wax mm-hmm. président président ni ma daal teraanga ji yaa ko moom. ma ne leen comme que la soxna si dem na jëli na natt ba te ñu ngi ñaari loxo. Mm-hmm. bu ñëwee incha allah ma jox leen ngeen dem jox mbër yi avance. ñi sëgg bëri. lu xew. waaw lu xew. non tàngoor gi la. ah tàngoor. ah tàngoor bi la tàngoor bi ci. loolu xew ñii dañuy toog fii xaar. waa ñii kii bi lañ jël si jox ma natt bi ma jox leen avance bi ñuy def. kaay tuuti ah. natt bi natt bi joxuñu la man ni dem naa si madame Ba. Hmm. nee na mënumaa jox xaalis ndax léegi yow ex ministre nga. nee naa ko dama bëgg a bàyyi delloo ma fi delloo ma li ma fi jotoon a am. Hmm. moom nee na moo bañ sëgg naa sax raam naa jooy naa fa lu ne def naa ko. léegi lu mu bëgg daa bëgg bàyyi ba mu këpp. nee na. Hmm. xaalis bi ñu fa jot a am muy cent quatre-vingt-quinze millions. Hmm. xaw ma deux cent. nee na ca fondation yi la ko jëmee. dañ koy perte kon nu may wax ñi. ah gérer ko rek man yow dëgg yàlla fi moo ma sonal ba mu léegi da ngay jóg après lay dem sa ndey Penda nga waxee ko ko mu wax ak mu wax ak président. mu ah, ni nii gàcce daal na ma di dërëm yorootuma ah, ma dem rek. Ah, xam naa ne ngeen a xaar añ na ku baax nga xam naa ne daal yéen. ku baax nga euh, wuy ma. Mhm. xam nga nu ñuy def. da ngeen maa tuddee woon drapeau bi. Mhm. muy ministre du sport. baax. léegi nag doonatuma ministre sport. Mhm. Amadou Ba moo ko doon. léegi da ngeen dem bureau bu ngeen demee ngeen wax maa leen boole ngeen continuer kooku moom mhm. ministre sport ndax sport bee tax ngeen tudde ko te moo yor sport bi. 6 ay waaw dem leen. Eh, kon kon doonatu ko léegi naa leeral président. waaw ni ko drapeau bi moom doon eh, doonatuñ ko. Mhm. waaw Mbay Tafaatin. parti réew mi doonatu ko. d'accord waaw kay jërë ngeen jëf. baax na jërëjëf jël fi dara. Eh, jógal jógal. baax na jërëjëf jërëjëf xam ngeen nii lii ne président bi man damaa war a delluwaat sama poste ba ndax lii moom ci président moom dañuy nax rek wax dëgg yàlla lii moom ay nax ak i war dong la delluwaat sama post bi ma ëpp mujj de.